fii euh, euh, état civil la ñu mon état civil la nekk mais ñi ñëpp ay contractuel a pas ay contractuel amul benn agent permanent à Abass la léegi ñun dañu ñëw fii parce que invité ou nous ñoo sommes pas parce que tey fête du travail nous ñu à marquer le pas ñu xam ne ñun jug nañu pour nous suñu suñu li ñu nekkee neexuñu amuñu bulletin de salaire duñ en charge ñëpp xam nañ ne fi branche yi ñu bokk branche yu noble la bo juddoo di nga fi ñëw bo deeyee di nga fi ñëw bala ngay tukki génn réew mi di nga fi ñëw këyit yoy yëpp ñun ñoo koy réglé te acte trois décentralisation bi mu duggee bi mu bi mu ñëwee ñun ñëpp lay enterrer parce que man dégguma fenn fuñ ñu tuddu nous sommes passés aux oubliettes ci pagne yi lañuy dem té dañuy